salaam salaam salaam salaam salaam nuyu ñëpp ziar ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay euh, dama nekk koo xam ne du ma gaaw di dugg di tontonte ndax du sama affaire ay mbiru tontante du sama affaire parce que damay wax ne man awma temps perdu bu may def ku wax yenn yi ma jug taf la mais buñ demee nag buñ demee ba mu commencé déborder il faut ñu régler affaire bi parce que man tey du ma ñëw Sweden bii ma ne Sweden lu ma am tey Suisse si ñoo ma ko jox ñoo ma jox seen këyit ñoo ma jox seen liggéey ñoo ma yaatal ñoo ma jox kër ñoo ma dëkkal ñoo ma may fu may wéer sama ndong ak sama wang ma war a fuuy ba bewu jàkkaarloog ñoom ne ñoom laay defanteel booba lan lay doon mbaamu xaraamata njaay bu bon laay doon dama romb nag léegi benn vidéo benn xale bu góor pël Fuuta su ma nee pël Fuuta du guinéen yëpp a tax may wax pël Fuuta yi laay waxal ndax susu yu ñu nga fa jaaxanke yee nga fa yeneen xeet yaa nga xam ne guinéen yi soo la dégg ba guinéen yi commencé taal seen live yi di wax ba di wax wax yu ñaaw booy tudd ñu ci war a tudd pël Fuuta yi kese la ndax yeneen xeetu guinéen yi ñu ngi biir Guinée ak biir Sénégal te doo leen dégg ñu wax ñu am diñ maa ngi soo ko xam lu tax ñu ne yéen kenn du leen def président yéen genre xeetu Israël yee ngeen yoo xam ne kenn du leen yàttal ci dëkk ndax yéen bis boo leen yàttee gis nga bi ngeen toojee ba tey football kese ngeen génne seen girif ak seen dangar yi seen vanne yi depuis booba tey yaa ngeen wax nag ñun dañ toll foo xam ne nii réew ma la ñu tal pour Sénégal ñu xam fu ñuy teg suñu tànk ak li ñu war a voté ak li Macky Sall taxaw bëgg a arraché laa la wax na ko foqet dignité dignité sénégalais yi bu ko bafuwi dictature bi mu taxawal ñun ci loolu lañ taxaw pour wax yow nga jël teg Amadou Ba ca xaw ñoo la gën a xam ne ne amadu Ba guinéen piir la ñu yaatal ko ba mu mën a dugg bokk ci élection xanaa ñun boog ñoo yaatu ñun sénégalais yi yéen bu ñu leen fekkoon Guinée kon ñun naka lañ fee dundee Guinée yi sénégalais yi nekk Guinée wallahi boo leen gisee ngeen yaatu ko ba tey dumbu yaa moo tax ndax dumbu yaa du pël Fuuta yéen pël Fuuta yi ngeen réew ngeen ñàkk ngeen kersa ñàkku ngeen worma yéen xuloo bi dootul football de parce que lii een bu yàgg lay nirool boo leen dencoon li leen naqari nag da ngeen koy wax seen bopp gis nga peuple am na lu muy dundee ba ñuy sot yi coono yenn coono yi parce que dafa fekk ñoom am na lu ñu mel yéen génnatoo leen baalu nit ñi yéen football Sénégal ak Côte d'Ivoire lu ci jar lii Ivoirien yi sax defuñu li ñuy def léegi jomaay moom lu ci yoonam ba guinéen bi yow ana yow ana guinéen ndax soo ne mbii mi Macky Sall na mbii mi ma ne ñun dañoo xàmmante gis nga ñu africains yi dañoo xàmmante man su ma ne bërëb di nga xam ne sénégalais la boo ne ma jàkk bu may séeréer di nga xam ne séeréer la wala joolaa la wala benn xeet la nationalité du ñu réer de yow en tant que guinéen nga toog di ree naan jomaay kan moo koy jox président waaw buñ ko ko joxee nga xam ne ne bu boobaa comme ni ma koy defee Sudan di nga fay sa séjour bi danga koy fay parce que dëkk bu nekk boo fa dëkkee man mi dëkk Sudan nii doon jigéen dama fay liggéey nii fay fi taxe bu bari muy 500000 bu ñu may dagg boo xam ne dama koy suuxatal seen réew bi ndax maa ñëw seen réew. yow seetoo naka la ñuy dundalee réew ak nu ñuy suuxatalee réew mais ngeen di seetal noo leen di digalee réew dugg nag fekk waa doomu réew ma ne yéen da ngeen yàqal doomu réew mi pour toroxal leen loolu mooy la ne jomaay ngay kokkali noonu ba teg ko tiim ko boo fa tegoon sa baay wala ba ngay soogoo jigee Guinée egg si naan dereng ba nga fay soogoo ñëw naan dereng ah léegi dégg nga olof waxuma nag Guinée yee yépp de ku tooñul kenn du la tudd mais moom mi tooñ moom laay tontu. yow yaay doomaraam yow yaay doomu xaj yow yaay doomu doomu berkelle yaay doomu fas ak mbaam yaay doomu mbaam ak mbaam ak mbaam juddu ci gàm mbaam yeewu ci mbaam màggee ci mbaam yaay doomaraam xam nga am na lu ñu war a wax nii parce que fi ñu toll nii ñun suñu guy national bi ñu jàppoon mu metti ñu ndax dafa doon xeexal réewam yow lan nga xeexal Guinée yow loo defal gine yow ñun ñoo la tane ndax ñun ñi nga am tëx sax dëkk ci du ko tubaab yi di dóoral suñu dënn Sénégal yow lan nga defal Guinée bi nga juddoo parce que ndong ko dëkk nag soo bëggee mu baax gis nga ñun ñu toog réewum tubaab yi dañuy xeex Sénégal baax pour ñu ñibbi dootuñ fi toogati pour defar suñu réew yow ñàkk jom neexaj uuf say bagage toog teg jomaay nga ne dangay ree waaw jomaay am na jom am na fulla ndax ci réewam la toog jàngee fa ba doon ki mu doon teddee fi mu toonee fi mu doon doomee xaraam gu mel ni Macky Sall fekk ay doomu gor yu mel ni soo ko am jomaay ñu jël leen néew leen doole ndax ñi seetaan dañoo bari ñu sot dañoo bari waaye gis nga nag dafa am lu olof yi di wax lu waaye rene sa loxo lay naaj mu yéex mu gaaw mu yàgg mu yéex Afrique dina réglé wu ndax gis nga réveil des consciences yi dañoo yeewu yéen guinéen yi nga xam ne yaa leen di waya waya yi nekk ci tiktok bi football kese ngeen génne seen vene yi di ko burusu da ngeen di nekk nit parce que dëkku européen yi ngeen nekk ñi ci nekk ci européen yi yéen lan la lan mooy seen problème lu leen naqari ku leen tooñ loo leen di jooy loo leen léegi yéen pour yéen dem ngeen ba yéen da ngeen def sax association yéen guinéen yi am carte d'identité ah neex na de man mii gis nga kii gën a raciste Suède su ma àndul moom kenn du ko xam su may voté damay voté ki may voté ba pare noppi kenn xam kenn la mais yow lan la Suède si nga xam ne 3 millions émigré kondong 3 millions kondong lañ am bëggatuñ sax émigré yi yéen ñu xajal leen ngeen nekk 8 millions suñ dëkk. am fitu tax suñuy nit di leen saagaaka di leen xas di ñu jaay réewande yéen da ngeen foog ne li ngeen mën ñun mënuñu ko Sénégal xam nga ne ku ko lebal kere mu fay la guddi ndax booy jaay xoola ruubee rek senegal yi lañ ko dàq foofu ndax ruubee nañ ko mooy suñ ñaareel tur yéen lan la ñun dañoo toll fu ñu toll nii dañ toll sax ku ñuy taf di defanteeg ñun yéen dëkk senegal bu neexee day neexandoog ñun nag yéen Sénégal su mettee yéen doo leen toog da ngeen di roñu ne xorandong comme ni ngeen def da roñooti rek dem beneen dëkk jur fa ba fees yow nga tax jomaay am loo koy wax doomu xaj doomu xaraam doomu kuti maa ngi xaar ba nga génnaat tafaat ko fu ma génn taf sa ndey dooma raam yéen da ngeen moom nit ñi yéen ñu Sénégal la lu nekk di def ñu doy may leen ñu jàmm waaye yéen Guinée yi fatt ngeen ñu dama ne woon du ma ci wax mais yéen da ngeen di nit ba ci miir mi seen yabaate googu wax leen seen i wax rek boogoo leen fi tafatee kenn ci suñu leader yi dinañ teppi fu ñu war a teppi te ko teppee kenn du ko ñoom xaj